man nag sama aay moom damay xool man laa ci am waaw. sa loxo la jarul ko. waaw ma jot. nooy fa ma jël seen parce que waaw wàññi ko. ak ndax gis ngeen. ngeen lay wan. waaw waaw. gën a enveloppe gën a enveloppe. enveloppe gën a enveloppe. enveloppe monsieur le maire. ah dina la gàllankoor enveloppe moo nekk nii. waaw bii la. d'accord bii laa jël gars yi. waaw dugal. lan dugal loolu lan def la. non non waa nii nii dara nekk si. kii di si kër gi. waaw nii yaa ngi koy yóbbu. loolu yëpp la. waaw waaw dina la foog. waaw. amiin amiin maa ngi ñëw xaaral ma ñëw. booy joxoo gala foto la ma pare. benn mën rek laa du ñaar. ma def ñaar. wala ñaar moom gis nga ma def. benn rek lay doon. monsieur le maire xool ñu fi ah monsieur le maire. waaw waaw tourné waaw. ba toll nii waaw waaw waaw. gis ngeen ni ma koy dóoree. dugalal. bisimilah. donc moom fan la ma fay. kii ma trace bi. waaw. waaw. yoroo bien sûr. alors acca cappal sa baaraam ma cap sama baaraam ma am ngeen kilomètre. daa daa amul ci nekk mënu ko nay daal. ah man ma ko mën a am mbéyum dundee. daal ko ah yéen vraiment nag daañu ngeen ñu quoi. merci gars yi. am na moroom foofu non bii du ma laa ba pare. non non na baaraam bi dugg. yëpp. waaw waaw sama xel xalaat bi takkal sama yow xanaa yow nga bëgg da nga bëgg a yàq sama yére bi man ndur ba pare ngeen xam ne may ma leen doon rek comprendre gaa yi aja gën galaay foo sama galaay ji baax na booy kaay leen fii kaay leen fii Pape Doudou kaay leen fii kaay leen fii fii fii Thank you. mu la caw ba pare. moom mooy waral caw de. Matal Goye Assane. bon na avancé waaye tuuti naa. waaw waaw waaw. tuuti naa na avancé na avancé mosala may na avancé. jërëjëf. madam bëse ko way dina baax mer qu'on en parle ça veut dire que tout le monde yàlla rek mu continuer nii ba fet boo xam ni kenn du ko wéret loolu mooy suñu objectif te loolu la ñu yaakaar ne que yàlla dañu ko defar voilà sur l'ensemble des dix euh, ce euh, que amul euh, manquement est amul benn quad boo xam waaw benn benn commune rek moo amoon manquement tuuti muy la commune de Morolan Morolan waaw c'est-à-dire foofu amoon na ay quelques bureaux yoo xam ne ni il n'y avait pas notre, notre bulletin. Donc les bureaux ont été arrêtés aussi. Mais actuellement, tous les bureaux ont redémarré. Parce que redémarré les bureaux, Boutiaï aussi Moudjeon, et Boutiaï aussi, on l'a déjà réglé. Donc ça veut dire que tous les bureaux actuellement fonctionnent normalement dans le département. loolu aussi ñu ngi ciy sant bu baax bi nga xam ne fu nekk am nañ représentant yoo xam ni am nañu fulla bu tànn bu ñu gisee lu ñu xam dañoo arrêté bureau de vote ñu arrêté bureau de vote yi mu jàll. statistiques yi nga xamante ni jot nañ ko pour le moment taux de participation bi ça tourne autour de vingt cinq pour cent ce qui dit ni au niveau des centres de vote c'est pas le rush mm. euh, mu mel ni taux bi dafay gën a yéeg ban message ngay joxe ak pour yow itam euh, lan moo waral nit ñi génnuñu ngir mën a accomplir euh, sen devoir civique waaw c'est-à-dire nit ñi dañuy def toujours confusion entre élection présidentielle élection présidentielle référendum la pour un peuple parce que benn nit la ñuy tànn benn nit boobu ngay tànn nag kenn ku ci nekk la muy yëg ci benn nit boobu la damay changé wala dama bëgg a changé wala dama bëgg a fal ko donc loolu rek la wala noo la donc foofu vote bi dafa gaaw te nit ñi nañ tig donc reche bi foofu lay nekk loolu moo tax seen taux de participation toujours mooy gën a bari parce que da ngay xam ne ko doo fi yàgg mais bu dee nekk élection législative la da nga ñëw fekk 41 nit ñi ni ko déggee mooy 41 bulletins de vote la dafay yàgg donc y a beaucoup de gens peut-être qui la paresse wala du ñu mën ñëw wala au moins dañ naan député bañ fay fal xaw ma ko wala institut parce que am na ñoo xam ne ñu ngi ci mais dañ fi dañ fi nekk mais duñ fi dañ fi yendu rek wala ñu fiy liggéey mais dëkkuñu fi en réalité donc ñoom dañ naan député bi bu ñëw ñi nga xam ne ñoo fi dëkk député bi ñoom la gën a intéressé parce que député bi buy kaas ñoom lay kaasal pour ñu defar dëkk bi pour ñu defar leneen leneen loolu moo tax élection yi du nekk benn de de ensuite durant ñuy def élection yëpp tu de participation bi ñu am au niveau des législatives tout le temps c'est inférieur de dix à quinze pour cent de la présidentielle musul musul musul ñu yem tout le temps euh, législative moom mooy gën a gàtt donc on espère que dans l'après-midi nit ñi dina ci bari ñu génn parce que léegi nit ñi dañ jàpp ni le matin dafay tàng donc tàngaay bi day bari na ñoo xam ne ñu ansi jigéen nit ñu ci bari dañuy togg añ na naan naa togg añ ba pare bu añee pare doog ñëw donc loolu aussi il ñu bàyyi ko xel xam ni am na jigéen yoo xam ni ñoom balaa ñoo ñëw dañoo toppatoo njaboot gi ba tey dimanche la donc rarement la ñuy am temps dimanche nekk ak seen njaboot donc dañ ciy profiter après dimanche bi après donc je pense que ni que dans l' le taux va encore monter un peu plus mais bu ñu am le taux bi nga xam ça moom il faut pas l'espérer. la dernière question laataa ñu lay bàyyi am na yenn si ñoo xamante ni ñoo gérer bureau yi di am yenn comportement. Mm. et que à 18 heures dañuy dem si benn dépouillement mu laaj responsabilité de tout un chacun. Mm-hmm. mais aussi les acteurs de presse yi nga xamante ni euh, y a trop d'influence y a trop euh, d'intimidation. Mm. Euh, ñooñu seen ay responsabilités c'est engagé dans ce sens ban message moom ngay. li mu leen message bi mu leen di rek. mooy képp koo xam ne def nañu dépouillement ba pare. l'obligation c'est de l'afficher à la porte. c'est une c'est-à-dire bu ñu paree dépouillement li ñuy njëkk a def avant ñuy remplir les PV dañ ko war a jël affiché ko xam ni lii la ñuy remplir mhm. vous prenez les informations qui sont sur l'affichage ça vous suffit parce que ñu ñoo ko bind la source c'est-à-dire boobu information boo la xasee ba rek am ngeen information parce que loolu ngeen am mhm. mooy figurer ci PV joxe te tout bu leen ci xeex bu leen ci xuloo mhm. ku ci ñëw daal booy ñëwee na nekk ci bunt bi gars par nañ dépouillement balaa gars yi génn nañ teg affichage ça c'est donc je pense que boo leen ko defee vous n'aurez pas ko defee yàlla dinañu dimbali ba yëpp jàll normalement. merci beaucoup mais amoon nañu benn problème ne diggante Massata ak bureau bi. waaw si dëkk bi toll a dépassé xam nga actuellement da ngay bañ ñu génnee benn kaaw xuloo fii kenn xuloo fi mun na am nag ay interclasse entre entre Masta xuloo wala kenn Masta xuloo wala kenn je ne veux pas que ñu jàpp jox information comme quoi que Masta wul Masta xuloowul xeexul dafa laaj droit am c'est tout ce qu'il a fait son droit c'est que c'est un député qui est le le investi nekk tête de liste départementale il a le droit de dans tous les bureaux de vote ça c'est son droit personne ne peut lui interdire maintenant les quelques les quelques kii yi nga xam ne moom loolu du xeex du xulo yaa ngi ne Masta nga samet dafa xeex xeexul xuloowul mi ngi ni taxaw mi ngi si mi ngi reetaan ngi fo kon fi kenn xeexul wasalaam <laughs>